Mm. lii moom wax dëgg yàlla metti rek la def lii moom ku ko xool xam ne metti na ndax dem na ba nga xamante ne ñun suñ néeg yeeg yëpp nii la mel néeg yeeg perong beeg lépp nii la feesee dem na ba nga xam ne ñun ci bitti la ñuy yendu fi la ñuy toggee mooy foofu nga ñu fekk noonu ci mbedd mi fi la ñuy toggee fi la ñuy yendu fi la ñuy def lépp ba tëdd jot ñu doog a xuus ñëw tëdd fii nii yaa ngi dégg doog xuus doog xuus ñëw tëdd fii nii ci ndox mi te xam nga tamit loolu baaxul waxuma la dara waaye ay yoog lépp lépp loo xamante ne ay feebar yu seesuwaan yi ngay gis ni yëpp ndox mi moo koy joxe te amuñu feneen li fii nii lañ am mënoo génn di wut fenn fooy dëkk wala dara amuñu fenn kon nii rek lañ koy dundee di jànkonteeg moom nii rek mu metti ba bëgg a def dëgg yàlla. nuñ koy dundee metti rek toorop toorop foo takk metti bi moom romb nañ foofu ñun tey ca buntu bikki di magasin yi fa lañ toggee añ fa lañ añee. สมัคร50ปุ่นยู่มายารอนบุกกว่าใจโยเดจันดอกมาจีกินหนาวเฟบุกเดนยุคูสดุกุตักสังเกตมุสเคอรินอัมดาวเลนยุคอมายอนบารันยูนยอสอนนุชุมาเอ็มเชียมีเรยอสอนนุชุมาเอ็มมาดาร์มีคุณสกลมาดาจันดูโปรโมชั่นมีฟรานเชียกิโลตัวสั่งเลยจัดีบิคิดบิคุณเอ็มกับเทียบว่าเรยอสอนุคุณยูดิมเลชิลีเลนบักกันดอกมีกิสเลนฟิคุณเอ็ดเด็กกันฟิคุณเอ็ดคุณยูเร็งกิโลเชียเร็งเยี่ไหม ñun nag ñun ñoo sonn ci ndox mi ñun sinistre yi dañoo sonn te ñu tamit ku ñëw di ñu dimbale ka ne ca kaw étage château am karo am étage buñ karo ñun amuñu étage buñ karo su néegi ñax yi la ñu am nga xeeb ñu dem may ko borom étage ya bañu ñun borom néegi ñax yi te borom néegi ñax yi ñoo ne ci ndox mi di xuus te borom étage yee nag li borom néegi ñax yi di lekk borom étage yee lekkuñu ko waaye nag dëkk bi léegi lu fi am jees neer kër guñ karo ab château moo fi am ñun néegi ñax yi faale wuñ ñu respecte wuñ te bu sànni carte jote bu vote jot ñu dugg sun bu sun biir néegi du ñu woo téléphone di ñu neexal di ñu defal lu ne pour ñu dem sànni ji carte ñun ñoo sonn nag léegi ñun ci loolu surtout nag fii ci xaaxum xaaxum jeeg bu am tànk bu baax amatu fi sama doom yi ñii ñii ñëpp fi mel ni tey léegi ñii ñoom lañ jël si ñii ñii xale yi lañ jël si pour yóbbu leen mbiri na seen kër nijaay ndax seen tànk yëpp dagg na ci ndox mi. dañoo defal benn bassin ci digg bi biñ defee bassin bi au lieu ñu def yoon bu ñuy jàllee dañoo def yoon yoo xamee ni ndox mi daf fay ñëw ci bassin ba mais bu ndox mi ñëwee ci bassin bi bassin bi day def retour ci suñ kaw te retour bi muy def ci suñ kaw suñ néeg yi la jëm si ñun amuñu doole juñ ko fegatee amuñu ciment buñ ko fegatee amuñu suuf suñ ko fegatee kon fuñ jëm ñoo ngi ci biir ndox mi toujours gu jot ñu diñu sarax li ñu dimbale ngir box jox ñu ay poqos léeg-léeg sax ay mbaari xar la ñuy bale pour man faa fanaan amuñu feneen amuñu fenn amuñu fuñ jëm

mais euh, ku nekk ci yoon bu ne laa jógal da war a jóg amul ku jun yëkkati suñ buñ si jógeet nañ ñi may ay jale suuf ñu jógal ci suñ biir kër yi kër yi sëkku yoon wi wàcc ñu mën a dugg ci biir kër yi bu ëllëgee dootuñu dem ci kër kenn di ci ñaanaatu wala di saraxoo